munu ji nga xamante ni li wax ni la partie occidentale dafa dem ba benn moment mu mel dafa bokk ci suñu dund alors que ñun am li nga xamante ne mooy suñu socle donc nga gis ni foofu moom sa bopp bi dafay fondamental dafay am solo mooy au plan culturel maanaam tabax bi ñu war a tabax doomu Sénégal bi ba nga xamante ni ëllëg bu taxawee ak lu mu mën a ubbeeku comme ni ko waaj ñaane woon ki njëkkoon nekk suñu président wu réew

buran daan jël juróomi nana naanaa boo xam ne juróomi dërëm laa jar léegi boo joxee fukki dërëm doo mënoo ko jënd wala sucre bi waxatu ko mm-hmm. ken waxatu ko donc pour vous dire que ni le mal a toujours existé te boo waxee euh, peut-être li muy renvoyé mooy système boobu nga xamante ne daf ñu njàtt depuis 60 jusqu'à nos jours on a comme l'impression que dañu décoller à la limite fait que ñu dafa am lu ñu téye li c'est des questions de souveraineté yo xamante dañ on a comme l'impression ne am nañ ko rek mais de façade mais en réalité amuñu maintenant nak bo waré askan wi il faut que yow ci sa bop nga xam fan la fan fan lañ ban responsabilité nga am ci yew bobu ñu leen yew ak yow mi leen a kan wala ñi ñan c'est hyper important parce que politique amna nu mu mel ci rew mi ñoo gak na gak bo dina ci mi au delà du discours qui est un peu euh, qui séduit bi baye ko ci Ousmane Sonko tay quoi qu'on puisse dire ken mun gis nga lolu nañu wax pro Sonko nga ak lu ma lu waay neex wax man je suis libre d'esprit suma ma lu bax dama naan lu bax la suma ma gisee nen ni nena gi su ma gisee loo xam te ne jàpp naa ne lii euh, am solo parce que dañu yeggoon ci ci ci réew mi yaa ngi hein? Sonko yi de non même en <laughs> dehors ñoom sax parce que day gis sax ñu fare ci nguur gi bo waxé des fois des fois lu nice loo gis ci Sonko ñu naan waa ay pro Sonko ay journalistes yo xamné ñu ci Sonko nangam <laughs> dama ni journalistes il faut que tamit fofu tamit ñu libéré wu tout à fait parce que gars yi léegi dañuy def terrorisme intellectuel bo xamanteni so len topé do wax li nga xalat ci réew mi du dem mm-hmm. motax il faut que gars am liberté il faut qu'on libère les énergies mm-hmm. nit ñi am possibilité di wax li ñu xalat tak ko ci seen aqulaay taala même bu ñuy far sax ñu xamni man farna waye li la wax mais mu doon un débat d'idées bo xamanteni ni contradiction bo xamanteni ne indi ci réew mi mooy ñi lay déglu mu na xamni ah fi lañ toll kon ci réew mi ñu mëna a formel sen bop sen opinion bop mais tey bu fekkee dañu am suñu tribune yoo xamante ni le débat est de bas étage amuñu dara loo xamante ne amul benn offre programmatique amul dara loo xamante ne par exemple bu ñu ko tegee ci penc bi di ko waxtaane mën na jur ëllëg nit ñi am espoir bi war a tax ñu jug dem ne diw mii kat yaakaar naa ko ci li mu wax jàpp naa ne bis bu toogee dina ko mën a jëfee ngir sama aafiya ngir samay aafiya doom kooku mu jaral ko mu am conscience boobu doon def ko pour man jar na ci tribune yi ñu fexe ba yëkkati débat bi fu mu baaxee ñu ne baax na fu ba euh, boné ñu né bon na mhm. aar ci lolu pour man lolu c'est fondamental et ñu ngi xaar ci au-delà de yeewi askan wi ak discours yi nga xamante dañ ko fi yëkkati acte yi njëkk poser posé wone effectivement on va vers des communes yo xam dafay commune communes yañ daan am mhm. en termes de gestion ak les ressources ya fa nek yi communes yi am nga xamante ni soo ça a été peu exploité wala à la limite ça exploité wuñ ko comment on peut faire dans le cadre gis nga décentralisation bi sax bi fi jaar euh, kii découpage bi. Mhm. am na yeneen injustice yu indi ci réew mi. est-ce que ñu dem ci les grands ensembles c'est-à-dire pour man tey local yi raison de plus de pour que les vraies questions. Mhm. les vraies réformes qu'on devrait apporter à la décentralisation bi ñuy amorcé te yeggul ak jafe-jafe yu ñu indil. dañ yooyu yëpp pour man. tribune la ñu war a mën a permettre que. Mhm. ñu hissé le débat mu yegg ci niveau boobu nga xam débat contradictoire lay doon bu sukkandiku ci ay idées yu am solo mais pas de ay saaganteeg wax yu ñaaw ak diw nangam par parlo yo nga xam ne yóbbuñu fenn. d'accord certainement sax ak ouverture bob nonu mm. certainement nañ ko am ñom après buñu ñu askan wi. ba le contenu de leur discours. alors Mbissane question fondamentale bi euh, Pape Ousmane wax nako moy départ bi nga bi ñu yaakaaroon euh, un bon départ alors que c'est un faux départ benen bi nee na ñi nga xamné ñom ils sont censés nous assurer ce départ là déchaîné ñu ñu mën envolé wu faw ñu xam ñooy ñan est-ce que nous composer coalition bi véritablement euh, selon li ñuy jot a gis li démarche politique yi nous nañu xam hmm, man dafa am luma ma gëm. moy mhm. ne nit mën na mel nen wala formation politique ak leneen leneen mën mën na mel nen mais. Mhm. mën na changer aussi. parce que bu ñuy wax yeewu askan bi aussi jàpp naa ne ah, am na kenn ki nga xam ne nii durant quarante ans partie bu géré woon Sénégal durant quarante ans bokkoon na ci ba doonoon ministre muy Khalifa Sall mhm. donc yooyu yëpp bokk na ci yeewu askan bi moom dafa doon moo bi nga xam ne nii see lourd donc ku ne nag sa dépend ci position bi nga fóote bon mën nga jàpp ne askan wi dañ koo yeewu mën nga jàpp ne aussi askan bi yeewuñu ko mhm. mais aussi moo la bu lourd quand même parce que yeewu aussi dafa dëgër mhm. mais aussi yeewu askan bi yaakaar na war na mën a tàmbalee fenn mooy lan bu ñu yew normalement ça way wax na ko suñu question de souveraineté day faral di poser wu sur la table te aussi tàmbalewul tay souveraineté politique comme monétaire souveraineté économique ak yi demee noonu tàmbalewul tay même Ousmane Sonko ñu ngi wax discours anti-système encore que lan mooy système exactement aussi bon c'est une question. discours anti-système bu ñuy wax ne da koy poser tout ñoom Decroix ñoom Amath Dansokho ñeneen ak ñeneen posé woon nañ ko avant jamonoy sengoor nekk ci clandestinité di ko xeex maanaam discours ak slogan yàgg na ci réew mi yeewi askan wi bennoo bokk xaw ma yaakaar ak taxawu Sénégal yooyu ay slogan la yooyu yëpp yi nga xam ne nii neex na dégg la man gëm naa ne la patrie avant le parti bu Macky Sall doon wax le président Macky Sall jàpp naa ne discours anti système la soppi bu ab Ablaye Wade hmm. doon bàkkoo bu ñëwee soppi réew mi discours anti système la man loolu laa jàpp leneen la len maanaam discours neex na trop mais aussi looy def ci biir slogan bi moo am solo te loolu aussi il faut ñu war ñu ay signaux yu clair parce que aussi yaakaar rek lañu mën a am ci nit ki tey bu ma jëlee par exemple Ousmane Sonko par parce que dama koy réaffirmer c'est le chef de l'opposition mais discours rek la ñu jaayagum neex na dégg nag ci ñu bëri ñëpp ñu ci adhéré bëri nañu yaakaar yu mu soulevé bëri nañu mais aussi même yaakaar boobu ab laay Wade soulevé woon na ko ci benn jamono aussi. Mhm. ay ndaw topp ko di ko xeexal. ay quatre-vingt-huit mais Macky Sall sax avant 2012. voilà Abdoulaye Wade surtout. Mhm. ñoom Clédor Sène. oui amul luñ ci dajul ak ñeneen ak ñeneen. ñii ñu rey leen ci ñii ñu tëj leen ci dañuy faral di wax euh, Sénégal dëkku jàmm lay tuut mais temps Senghor manifestation am na fi. ñu rey quarante personnes nag yi demee noonu yooyu yëpp ay xeex la yi nga xam ne ni askan bi yàgg nañ koo xeex pour libérer Sénégal libérer Sénégal nag néew na dañ koo tënk par exemple mais libérer ko ci lan <laughs> mooy classe politique bi nga xam ne ni seen train de vie boo koy natt ak train de vie ñi gën a suufee peut-être ci askan bi dama ko waxee noonu rek da ngay gis ne y un fossé da ngay gis ñi nga xam ne ni yéen nekkoon <laughs> par exemple wala leneen la école et tout a mu doon politique politique moo politique du et cetera donc au fond une injustice te aussi l'un dafa am gis nga euh, révolution fu mu mënti am révolution fu injustice moo ko indi tey lan lan mo daniel Ben Ali mhm. lan mo daniel mubarak ci Tunisie la tambalé ben chômeur diplôme am diplôme mënul am liggéey lal ci mbedd mi di jaay ci trottoir ben alkati fekk fa mbéj ko nako waro pam lal stal. mu mer lolu tal bopam soti bopam essence tal acte bobu tamit merlo tunisien ñu genn Ben Ali dan, Mo Daniel Mubarak, Mo Daniel Khadafi. naroon daaneel waaja ca Syrie benn Assad lépp injustice moo ko indi te Sénégal loo ci mënti wax ñenn ñi sax naan naroon daaneel Macky Sall le huit mars dernier <laughs> weesuwul fa laay ñëw mhm. parce que Sénégal loo ci mënti wax mhm. loo ci mënti wax am na benn sentiment de frustration bi nga xam ne ni euh, mu ngi animé peuple bi wala benn parti ci peuple bi mhm. sànq wax ngeen saaga yi booy yi di saaga yi tout boo waxee ñu saaga la ci internet beeg yi demee noonu loolu exutoire la mooy genre wax sa xalaat maanaam hmm. da ngay toog sa kër am loola naqari nga woo décrocher sa téléphone woote ci télé après da ngay soulagé wu ñoom itamit peut-être réseaux sociaux yi exutoire lañ ko lañ leen jàppee. mais anam bi ñu koy defee xawul doy waar. doy na waar. Hmm. doy na waar mais maa ngi ñëw ci loolu. te loolu nag peut-être bu peut-être ku ci mel ni Ousmane Sonko amul woon parce que ñu ci bëri Ousmane Sonko la ñuy jàppale quand même. Hmm. jàpp Ousmane Sonko bu ñëwee lépp dina changer c'est naïf quand même parce que mënul changer lépp ça il faut le dire du ko wax mais mënu mais l'essentiel l'essentiel fu ñu koy xaar donc mhm. mais ñom japp nañ ne Ousmane Sonko bu ñëwee mu changer man japp naa né looloo jamm Sénégal imaginel tay Ousmane Sonko wala keneen opposition bi ni ñu affaiblir ko ba melni Ousmane Sonko amatul ci langu politique Sénégal yaakaaratuñu ci kenn nan lañuy def parce que lu leen té Ousmane Sonko la parce que yaakaar nañ ne kii bu faloo seen coono jeex loolu moo tax ñu dal parce que japp nañ ni fi ak 2024 Ousmane Sonko war na mën a bu falo lepp jeex kon nañu dal. te gis Ousmane Sonko wala ku mel ñu mel ni ñom buñ fi nekkul won tay nan lañu jaral gis nañ ko. te ci 8 mars bi bo xolé en partie li waral soulèvement bi. c'était que Sonko du dugg prison. absolument te kenn du ko faagaagal ci politique aussi Mali lan moo fa xew. Mhm. Guinée lan mo fa xew. et cetera et cetera donc sous région bi bindona mhm. famille.

men première lecture bi nga ci am <laughs> xam naa ne si ñëw ñu bàyyi mbisaan mu daaneel bu ko defee ñu ñëw ci loolu boo ne xamaguma nag hmm. bu dee ñuy tàmm politiciens yi ñuy tàmm di xuloo yu ñàkk fayda yi hmm. enfantillage hmm. donc c'est un mauvais départ bu dee ay place la ñuy cook maa war a toog fii maa war a toog fee nga war a yeewu askan bi aussi tamit mooy yeewoo ko kenn yeewoo kenn lii ci système bi la bokk par exemple. Mm-hmm. nee nañ ay irrégularité moo waral sax justement désaccord yooyu am déjà. désaccord bala ñoo yegg si fii waroon nañu gome yëpp bépp désaccord. Mm-hmm. bëpp désaccord mhm. par exemple mu ngi commencé peut-être comme démb maa ngi koy expliquer sànq Mamadou Diop Decroix boo ko bëggee boole ci waxtaan wi parce que amul poids électoral mais am na xam-xam quand am na benn légitimité historique mhm. doo dem balaa bay nga ko koy expliquer gi demee noonu doo ñëw ba ci salle bi di régler aussi yenn détails yi donc yooyu yëpp ay enfantillage politique la yi nga xam ne ni euh, waroon nañ ko éviter quoi d'accord Pape Ousmane euh, ñu bëri ñu ngi soutenir ne euh, c'est une coalition est-ce que du xeetu xeetu xeetu doxalin yi moo tax peut-être ñu bëri amuñu yaakaar ci coalition oui mais bon euh, tamit euh, peut-être duñ jël benn ben cas isolé rek mhm. <laughs> daal ko généraliser bien sûr mhm. mais bon xam nga ñi wax ni mëna na doon coalition morne peut-être dafa am ci ñuy sukkandiku di ko wax mais xam nga lo xamante juddo juddoogul rek nga ni déna euh, bon c'est à la limite euh, de la météo politique. te man ñoo xam ne li PDS peut-être oui parce que force bi mu doon quand même. loolu mom nañ ko ko nangul nee naa man su wax ni diw amna force Fima koy nattee mooy ca nattukaay bi bu ñu nee nañ dem jongante bu ñu demee jongante bu ñu ci génnee la ngay génnee ci la ñuy xam ba xam yow mbër nga wala doo mbër. Mhm. te honnêtement quoi qu'on puisse dire euh, parti démocrate sénégalais wane na ni mbër la ci élection législative yi ñuy génn. Mhm. présidentielle mu ñu ko wax parce que kañ yaakaaroon mujj te dem. donc forcément ku toll noonu ak la muy peser suñu né ñu ngi wajé a coalition ñu annoncé ko ñu dem ba ci biir mu mom moom forcément li nga waron am en terme de euh, de gain politique da koy mais cela ne veut pas dire que aussi euh, parti démocratique sénégalais genn na de croix comme il a dit effectivement and jëf euh, PADS euh, and jëf xeexoo beeg na mu daggee moo tax gisuñu ko wala bok xamuñu fenn fu démé élection mais comme il l'a dit effectivement bokk na ci nga xamné ne wax ci histoire politique Sénégal Donc, ñu génnee au regard de son parcours ak li mu ci jot jouer. joué. ci walu xam-xam bi ci wàllu xam-xam bi surtout. je suis entièrement d'accord que ni euh, yoré réew waru doon l'apanage des partis politiques. Mm-hmm. même bu féké c'est vrai pour nga mëna accéder hein euh, ci suffrage euh, suprême. Mm-hmm. faaw nga jaar ci parti politique yi parce que non, la suñu charte yi bindoo. Mm-hmm. mais japp naa ne au delà de loolu aussi tamit les partis politiques war nañu mëna tamet sen sen parce que dafa am lenn luñu ñu raté ci sen vocation moy ni militants yi am en réalité c'est pourquoi c'est pour que ñom ñu préparer à ce que ñu mëna exercer le pouvoir ñu mëna def ci ñom lan moy homme d'état nan lañuy liggéey li sa réew mais tay ci parti politique yi parti bi nga xam te moom la réservé à l'école du parti gis nañ ñu mu démé légui xam nga bo jëlee parti bu melni APR ñu né l'école du parti ki ko jiite moom maître Djibril War mais si mais ce gars-là

Euh, valeur solidarité yeeg yenn valeur yi nga xamné dal Macky Sall mo ngi ko don jaay askan wi ñom dañ ko bayé de côté mo melni mom dafa mel mo ngi incarner valeur ba je suis entièrement d'accord mais ci kaw lolu mhm. dafa am nu ñuy incarner valeur xam nga kilifa so so nekk ci pénc nga am no mel don kilifa